asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibé yi ñooy leen di nuyu bu baax te di leen siyaare ci nduru ci turu sëriñ abou mahamad xalif cheikh mahamadul mamoun ak mbooleem njabootuk maam cheikh anta gépp soo leen gisee ni ñu toogee tey suñ jotaa bi xam ne ndigal bàyyi koo na fa daan bàyyi koo ñëw ci murit yam daan ñëw bàyyi koo ci sëriñ abou mahamad wàcc ci sëriñ mbàkki madina moom sëriñ mudu roqaya ak mbooleem daayira yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Daaru Salaam ak association yi ak mbootaay yi nga xamante ni moom la soxna yi seq ñu fas yeene def li nga xamante ni mooy waajtaayu màggal Daaru Salaam muy préparation yu màggal Daaru Salaam di set seetal bi nga xamante ni dañ ko baaxoo amal ci at mu nekk saa bu màggalu Daaru Salaam jub see ñu war koo amal ren la 17 vendredi incha allahu rabbi ñu war koo commencé nag liggéey bi tey jii ñi nga xamante ni nag ñoo war jël kàddu yi ngir jàllale woote bi mi ngi doon Serigne Mbacke Madina moom Serigne Modou Rokhaya xam naa mooy tëj kàddu wax ci turu Serigne Abou Mouhamad soxna Rama Cissé mooy wax ci turu jigéen ñi Serigne Makhtar wadd moo war a woo ñi nga xamante ni mooy administration bi Serigne Baye Diop moo war a wax ci turu mbooleem daayira yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Daaru xam na ñu maase kon teewlu rek jox leen seen kàddu yi ñu àgge ko bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu bu baax a baax mboolem ñi fi teew ñëpp ci turu Serigne Abo. ñi nga xam ne mooy xalifa Serigne Modou Mamoun woote bi nag ñi ngi woo ñi nga xam ne ñoo ndëkkee Daaru Salaam ak gaawaan ak li ko wër sëriñ bi daa wax ne mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk diggante Daaru Salaam ak gaawaan ak li ko wër ñi ngi leen di woo ci bisub set setal bi nga xam ne moom la ñuy waajalee màggalub Daaru Salaam ndax kuy dalal aw gan war nga ko waajal waajaay wàccaay woo xamante ni bu dikkee maanaam du fa am benn jafe-jafe sëñ bi nag nee na mi ngi woo ñëpp ndax ñëpp bayut fenn mi ngi woo daayira fépp fu daayira nekk ndax fépp bàyyiwut fenn loolu mooy woote bi nga xam ne moo jëmoon ci mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk diggante Daaru Salaam ak gaawaan ba ci Touba ak li ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Daaru Salaam leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abo Mbacke xalifa Daaru Salaam di wax nag ci turu soxna Ndey Diop mi nga xam ne moo ñu jiite ñun mbaleem daaru salaam jigéen ñi ñuy sànni kàddu yoo xam ne dañoo bëgg a jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci daaru salaam gaawaan tuuba daaru marnaan ak fépp foo xamante ni jigéen a nga fa ñu ngi lay woo ci mbaleem daaru salaam mi nga xam ne chaque année dañ koy def ndax suñuy wax balekat jigéen a tax te kuy woo ay ganit war ngaa set set setal fa nga leen di dalal ba noppi kon nag mbooleem koo xamante ni jigéen nga rek nekk ci diggante Mbàkke Daaru Salaam Gaawaan ak tuubaa ak sanc Daaru Salaam yëpp rek ñi ngi leen di woo bu àjjuma ne ñëpp teew si ñi mën a bale nañ bale te képp kuy bale na nga tàmbalee sa buntu kër nag jëm si ci péncum Daaru Salaam ñi mën a bale bale ñi mën a dem ca waañ wa dem ca waañ wa toppatoo bernde yi nga xam ne moom lañu war a jox jigéen ñi te ñu leen di ñaan jigéen ñi nañ gën a takku taxaw te xam ne lépp luñ mas a def kat jigéen ca man bu ñu yam ci bale bu ñu yam ci ñëw ca waañ wa nañu génne xaalis yi weccet wi nga xamante ni mën nañ cee jàppale ñii bernde mën nañ cee jàppale jënd ay bale mën nañ cee jàppale ñiy jënd ay ndox te ñu takku te taxaw te xam ne lépp lu ci waay def kat sa bopp nga ko defal ndax dëkku maam Cheikh Anta bii kenn ku ci ne loo def rek sa bopp nga ko defal. ñu ngi leen di gërëm di leen sant tey soññ ñëpp nag ne ñëpp génn bàjje bàjjenu gox yi maa ngi leen di soññ maa ngi soññ ñëpp rek nañ génn ci bale mi. ya di jaar ak a ñaanal suñu yaakaar tey ëllëg Serigne Cheikh Anta Mbacké di ñaan suñu borom gën ko dolli ak wér te yàggal ko fi lool eh, di jël kàddu nag si turu. daayira yi nga xamante ni ñoo daje fii ak mbooleem mbooloo mi nga ne ñoo dajaloo ngir waajal mbalem Daaru Salaam euh, ñu yëkk suñu kàddu nag di ko jëmee si ko jëmee si ñi nga xam ne ñoom la ñuy woo administration ku wax nag euh, Daaru Salaam xamee ko ni dëkkub maam Cheikh Anta la dëkkub Serigne Touba la waaye nag dañ ko séq ak administration bi nga xamante ni mi ngi si kilifteefu mairie Mbacke kon dañ koy tàmbalee si ministère de l'environnement bi nga xamante ni suñu wax wàllu baleeg set setal ñoom lañ si ñoom ñoo ñoo ko war a def kon bu ñu koy def day mel ni leen siy wut kon ñu ngi leen si woo bu baax a baax di wax lépp loo xamante ni mën nañu ko jàppale si lu jëm si ay balek ay ay peel ay râteau ñu jàpp si bu baax a baax. ñaari maire yi nga xamante ni ñoo ñu seq muy maire bu Touba ak mairie bu Mbacké ñu ngi leen siy wow bu baax a baax at mu jot niñ ko daan defee niñ si daan jàppee rek ñu gën a yokk seen loxo bu baax. te jàppale ñu si liggéey bi lu si jëm si lu mel ne si ay camions yu mën a tonni mbalit ay pelle mécanique wala ay jumtukaayu bale yëpp rek ak lu jëm sax ba si bon gasoil yi nga xamante oto yi nga xamante ni fiy ñëw te ñu leen di jàppale si gasoil euh, Touba sa kanam ñoom tamit duñu leen fàtte ndax at mu jot ñu ngi si jàpp bu baax si liggéey bi euh, lu si mel ni ay camion camion pelle ay camion yu mën a tuuri mbalit ak ay pelle mécanique loolu moom yoo xam ne dañuy ton ni euh, déchets sauvages yi nga xamante ne am na si dëkk bi di woo borom camion yi nga xamante ni yor nañ ay camion benn képp koo xamante ni yaa ngi dégg suñu kàddu ñu ngi la si woo euh, nga ñëw jàpp si liggéey bi camion bu ñu ñëwee bu fekkee ne mën nañu am carburant baax na bu ñu ko amul tamit ñu jéem sàkku carburant defal leen ko sëñ galas mu sëñ Modou Roqee daan na si jàpp bu baax kon ñu ngi ko si sàkkuwaat di si woo bu baax baax si camion yooyu ak ku ñu wax sëñ Amar Badiane waa UCG waa Sonaget ñoom moom at mu jot ñu ne ànd ñoom liggéey bii ñoom moom bu dara xewul sax wax dëgg ñu ngi ñëw di si liggéey kon nag ñoom ñu ngi leen ci ñu ngi leen koy feddaliwaat bu baax a baax di feddaliwaat kóllëre gi ñu ànd kook ñoom lu si mel ne ay euh, ki am na kees yu ñu yu ñu daan abal ren nag mbale mi dafa nekk ajjuma le 17 juin le 17 mai 2024 ñu xam ne dinañ bale toogaat semaine doo ko tàmbali njàngu mi kon day mel ne bu ñu balee diggante bi dina fi xaw a mën na ay taq-taq mën na fi amaat kon ñoom tamit bu ñu fi mënee bàyyil ay kees yoo xamante nii ñuy tuur mbale si lañ koy tuur duñu si am solo bu ñu mënee tamit waa mairie bi lu ñu lëkkaloo mairie bi ba camion yi di fi jaar bi seet ñu def ay ramassage ramassage des ordures nañ si baax ndax mu bañ a taqaat balaa màggal gi euh, kon nag association yeeg daayira yi ñu woo la ñu wax association yi tamit bàyyiwuñu leen association yi nga xam ne ñu ngi si diggante Touba ak Mbacké Daaru bàyyiwuñu kenn euh, di woote mbalem Daaru Salaam euh, sëriñ bi wax ne mu ngi ci woo mboolem ku mbokkal borom gaawaan Eh, di njabootu borom gaawaan yi buntu kër borom gaawaan yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy woo eh, mi ngi ciy woo tamit mboolem seex si aju ci kër borom gaawaan yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy woo eh, mi ngi ciy woo tamit waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ciy woo jiital ci sëriñ Moustapha Mbar ak soxna Njaxat Silla mi nga xam ne ajjuma ju jot mooy ànd ak mbooloo di bale dëkk bi bu dara xewee ak bu dara xewul lépp sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo mi ngi ko ciy woo ak mboolem taalibe boo xam ne nii aju nga ci Daaru Salaam Euh, sëriñ bi nee na mi ngi ko ciy woo ak mboolem buntu kër sëriñ Mouhamadul Mamoun yi ak taalibe yi nga xam ne aju nañ ci yoonu murid yëpp sëriñ bi mu ngi leen di woo ci mbale mi nga xam ne euh, ñu ngi koy def Daaru Salaam muy ajjuma le 17 sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo góor ak jigéen mag ak ndaw nee na bëgg na taalibe yëpp ànd maase ànd génn génn euh, setal dëkk bi ñu waajale ko gan ñi nga xam ne ñooy ñëw ci dëkk bi Daaru Salaam nag dëkkub sëriñ Tuubaa la boo xam ne sëriñ Tuubaa ko sancal boppam Cheikh Mouhamadul Moustapha ganee fa àdduna ak Cheikh Mouhamadul Moustapha muy dëkkum ngëneel di dëkk boo xam ne sëñ Tuubaa dafa denc dencam yu baree bari kon sëriñ bi nee na taalibe yëpp mi ngi leen di woo ci ñu ànd ànd maase euh, Daaru Salaam ba gan ku ñëw rek euh, fekk fa taw. bi mi ngi noonu mooy waajtaayu màggalug Daaru Salaam màggalug Daaru Salaam nag màggalug murit yëpp màggalug jullit ñëpp Daaru Salaam la ñuy buub di ko seetal Daaru nag moomeel la goo xam ne Cheikhuna Ahmadul Xadim moo ko moomal boppam. sancal ko boppam jaamu fi yàlla ba yàlla defal ko ay ngëneel ubbil ko ay bunt mu gis Touba sanc Touba jël Daaru Salaam rafaatale ko rakkam ju baax ja maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan Daaru Salaam googee nag koo xamante ni xam nga ni am nga cofeel gi Serigne Touba koo xamante ni di nga sàmm mboolem lu fi Serigne bi bàyyi sàmm Daaru Salaam ak taxawu ko sawarteef la dëkk bi nag bu mu mën a doon wolof yi dañuy wax faral di wax ni ku lakk mburu tudub dëkk waa kon dafa am ñoo xam ni ci ñoo njabootu Serigne Touba ñoo féete woo Daaru Salaam muy waa kër maam Cheikh Anta waaye taxul kenn génn ci ku ne am nga ci cër ku ne am nga ci wàll kon ku dégg appel bii rek jàppal ni setal Daaru Salaam yow sa war warteef la bis bu ne yaa war a ñëw di ko wattu bis bu ne yaa war a ñëw di ko buub bis bu ne yaa war a di ko setal su yàlla dogalee ba mënoo lool nag benn bis ba ñuy jàpp ci at mu ne ngir waajale ko bisu màggal gi loolee taalibe bu nekk waroo xaar ku la ci ñaari yoon ba ca doolee ko nag màggal ga ñuy waajal màggal gi moo tax tey fu jàmm am màggal gee ko waral fu xéewal am màggal gee ko waral ndax màggal gi mooy ñibbisig Serigne Touba ijaar rujuuxi ilaa xawmi sahadatana wal takfina yawma jam xalqi niiraana fii la xewoon ci Daaru Salaam fii la waxoon maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta ni ko Cheikh jiituma Daaru Salaam foo ma dégg dama faa jaar ëmb bi Daaru Salaam laa koy tekkee kon ëmb boobu Serigne Touba doon tekkee fii ci Daaru Salaam doon joxe ay xéewal kenn ku ne xéewal yooyu yaatu ba nga jàpp yow rek la Serigne bi defal loolee la ñuy màggalaat tey jii muy màggal gi nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk a teewee njëkk cee joxe ndigal Cheikh Mahamadul Muntaxa yeesalaat ko màggal googee kon lañ ci la ñuy waaj le 26 waaye la 28 waaye le 17 nag incha allah mooy bisub set setal dëkk bi kon ñii sëriñ bi tudd ñëpp ñu jaaraat ci rek ci bu gaaw ñu koy fàttali soxna Astu Mbàkke moom sëriñ Abdoulahi borom dër bi ku ne xam ne ni ci njabootu sëñ gaawaan la bokk soxna maam Isa Mbàkke ahlu kafe kazalika moom it am na ci taxawaay boo xam ne at mu jot doo ko ci daan amee sëriñ Abdouloo Ndaam Matlabul Fawzayni ñu ngi koy ci soññuwaat bu baax moom it at mu jot da ko lay ànd ak ñun euh, Serigne Fallou Tine di kilifa gu am solo ci dëkk bi ci taxawaayam ak liggéeyam ñu ngi ko ci soññuwaat bu baax moom itam mbooleem dawaayir yi ni ko sëñ Mbaye Diop waxee bépp daayira bu mu mën a doon nañ jàpp nii daayira moom moo ko xam ni daa sasu ni damay liggéeyal sëriñ bi coobarey boppam kon nag kuy liggéeyal sëriñ bi sa coobarey bopp ba sëriñ bi woolan la kaay liggéeyal ma su boobaa waroo xaar ko la soññu yoon kon daayira yëpp bis ba 7 heures du matin rek fekk mboolem daayira yi euh, ah, mboolem ak kuréel association yi fi nekk itam seen xembeem teef mooy li daayira yi def rek mooy développer seen i dëkk ndax association boo dégg dàkkantaloo mooy développement développement nag environnement moo ci jiitu nit ki boo setul mënoo développer kon bépp association bu nekk Touba ak Mbacké nanga xam ne bis bii ñu ngi la ciy woo di soññuwaat ñëpp kon daal bis la boo xam ni bisum ngëneel la bisum njariñ la bisum tawféex la waa sanc Daaru Salaam yi be mboolem quartier yi nga xam ne daa wër Daaru Salaam nañ xam ne woote bii seen woote la ñu ngi leen xaar liggéey bi nag nañ ko bëggee incha allah le le 17 7 7 heures du matin na ñëpp génn ñu àndaale ay ay bale ay radu ak saako yu ñu ko tonnee ak oto yu génne mbalit mi dëkk bi ndax boo ñëwee ci mbalit indi woo benn jumtuwaay boo bale see su boobaa da ngay àndandoo di lëngoo ak waxtaan rek loolu jëlul fenn mbalit kon kuy jëm ci ci bale si na nga indaale loo bale na ñuy yor indi ay bale ñi indi ay radu ñii ay tame ñii indi ay saaku ñi am ay oto mën koo indi nañ ko indi ñi am ay nañ ko indi ñu dëkk ci dëkk bi itam ñu xam ni ñii ñëw dañ ñuy tekk si rek ngir jàppale ñu waaye ñoo war a jiitu ñëpp ku ci am mbalit moo xam bëgg nga mu dem na koo ko génn mu jige tali bi su boobaa na ko yombalal ñu koy jël si waaye jël si mbalit bàyyi ci sa biir ba oto yee nga door koo génne su boobaa lañ liggéeyoon yaa ngi koy takkalaat kon ñu ngi santaat ñëpp di ñaan Cheikh Abou Mbacké mu yàgg fi lool ak mboolem jabaru Serigne Gaawaan gi yëpp